alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan sakartuhu liannu qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa baad falishaaciri abdilqadir siis ayyadahu abadan binasrihi almaliku alquddus هذه القصيدة المطرزة بحروف قوله عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وهي قصيدة يمدح بها الشيخ sëriñ Mbàkke Madina bna cheikh Mouhamadin il Moustapha bni cheikh il Xadimi radiyallahu anhum jamian bismillahi arrahmani arrahim alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baada almawt ila alkayis ibni almustafa man sëriñ Mbàkke Madina ismuhu almaarufu inda zawi darki luaabu qilaami fi lqaraatisi mubdiyan بخطي مزاياه الكثيرة ذا سبك كتبت على ابن المصطفى البر مثنيا وزحزحني حق اليقين عن الشك يريد الذي اختار الإله لنا وما لنا اختاره شيخ شكاياتنا يشكي يرى فضل من أثني عليه فيا له مريدا حوى صدق الإرادة بالمسك saidun fama fi lqalbi misqaalu darratin min alkibri alaahu tawaaduu da mulki munibun ila mawlaahu fahuwa anisuhu wa mawduduhu an nahihin kaffa bittarki nahaahu an altafriti fi lxayri nuhyuhu fa nicma alxanifu almustaqimu bila shirki dacaa nafsahu lisaalixaati ishtigaaluhu dawaaman bima yacniihi zuxzixa an danki ila dikri yanxu qalbuhu wa lisaanuhu wa awsaaluhu bichukri tazku bila ifki nafa lagwa tartilu lkitaabi almubini an sëriñ mbakke faaxat minhu raihatu lmiski najibun kasiru lsumti mustagilun bima yuqarribuhu zulfa ila rafici samki fadailuhu tabdu alcibadatu hammuhu wa nafcu lwara zabba alrazaila bilarki سخي فلا الإيعاء والجمع يشغلانه عن رضا رب له جاد بالملك هو الزاهد المجذوب لله بالهدى بأعماله الشيطان مع حزبه يبكي ويضحك بالأعمال أهل الصلاح والطهارة من بالبسم صين عن الضحك وضيء له قاد الوضوء على المكاره ما أرضاه قل نعم ذو الدلك ajibun fa gaddu tarfi an kulli sawatin bihi tahura alqalbu salimu min alshakki muhibbun li jaarillahi jalla muazimun lahu fa xafidu lcheikhi ahmada zurahki laqad kaana barran mustaqiman ala tariqati alqawmi za zuhdin wa taqwa lahu sabki liman kaana awaaban liman kaana awaaban ila allahi muxbitan ilayhi sana wajjahtu lillahi zi lmulki madaxtu alladi lixlaasu an sumcatin wa an riyaain xamaahu lcheykhu udxila fi lfulki ila saaxibi alqur'ani man kaana caamilan bihi zajtinaabin can nawaahihi bittarki bihi llaha yurdi bilqiyaami wa bittilaawati nnaasa yurdi bilcataaya bila batki uquudu sanaa'i alhamdulillahi jaadali bi xubbi alkiraami alatqiyaa'i lahum xabki duciitu ila alxayri imtadaxtu samay zacan fadaa'iluhu acyad zawi albaxsi waddarki ila man lahu tartiilu aayaati rabbihi qadaa jumlata alxaajaati bacdammi xaddanki liwajhi alladi awlaahu xayraatihi sanaa saraftu liya albushra tusaaqu fala abki madaxtu xabiba zikri man kaana layluhu bihi kanahaarin sitruhu siina an hatki waduudu ala almuxtaari salli bi alihi wa asxaabihi wannafsa xaaliqaha zakki taqabbal bihi yaa za taqabbuli xidmati wa qud sarmadan ala ridan li Sëriñ Mbàkke subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di jiital ci nuyoo bi ak ci ziyaar bi saaxib alfadilati sëriñ Mouhamadul Muntaqal Mbekki ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar di ñaan suñ borom tabaraka wa may ko fan wu gudd te booleel ko ca wér gi yaram ba mboolem naal yi nga xam ni naalal na ko lislaam yéene ci jaamu suñ borom tabaraka wa taala ak liggéeyal cheikh ahmadul xadim lépp di jëriñal lépp di jullit ñi suñ borom tabaraka wa bàyyi ko ak sagoom ba lépp mu àggale ko niki noonu di nuyu ak a ziyaar mbooleem njabootuk cheikh ahmadul xadim gépp ba wuñu ak mboolem taalibe yi di nuyu tamit ak ziyaar mbooleem njabootu cheikh Mouhamadunul Moustapha bawuñu kenn waaye nag tamit di nuyu ak ziyaar mbooleem njabootu Serigne Mbacke Medina di nuyu niki noonu tamit ak ziyaar mbooleem kilifay diine yi nga xam ne ñi ngi ci réew mi te amuñu benn yitte bu dul taxawu lislaam ànd ko ak seenu njaboot ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar te di leen ñaanal kenn ku ci nekk fi nga féete ci toolub lislaam di ca liggéey suñu borom tabaaraka taala dolli la tawfiq ak mbooloo ma nga ko àndal te jubal seeni mbir ñu ki noonu tamit di nuyu ak a ziyaar mboole mbokki julli ji nga xam ne dañoo bokk ñoom réew mi ñu rafetal dëkkandoo gi lool di sàmm xàq suñu borom tabaaraka taala ci ñun ñu nit ñi sàmm xàq suñu borom tabaaraka taala ci ñoom di ñaan suñu borom boole ñu defal tawfiq ñun ñëpp. mbokk yi kon ginnaaw nuyoo bi ak ziyaar bi dañuy del seeti incha allahu taala fas yéene ànd ak yéen ci genn xasida goo xam ni dañ koo def ci koo xam ni moom lépp lu waay laal ci mbiram suñ borom tabaaraka wa taala mën na la caa defal barke boo xam ni sa mbiri àdduna ak àllaaxira mën na caa jege kooku nag di koo xam ni moom ñëpp a ko xam muy Serigne Mbacke Madina mu Cheikh Mouhamadul Moustapha ñu jël xasida gi nag jëme ko ci moom xasida gi ñu ngi ko tënkee wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ji mu wax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ni alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baada al mawt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alkayisu ki yeewu alkayisu ki nga xam ni dafa am xel man mooy ki nga xam ni daana nafsahu dafa contrôler boppam régler boppam wa amila mu jëf lima baadal mawti ñeel la nga xam ni ma nga ca ginnaaw de yonent bi sallallahu alayhi wa daal ki am xel daal mooy ki nga xam ni saabu bu xëyee mi ngi controle boppam di seet la muy wax di seet la muy jëf di seet la muy yëkkati ci loxoom lam cay jàpp ab tànkam fan la koy séqi jëm lan lay dugal ci biiram lan lay wax ci aw làmmiñam lenn lu ne daal ci ay jëfam ak i waxam mu natt ko ci àndaari sharia lu ci dëppoo ak moom mu téye ko gën koo fonk lu ca wute ak moom mu fexe ba dindi ko ci boppam taxaw temm nag ci jëfal la nga xam ne moo nekk ci ginnaaw de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na loolu de ku muy saw melokaan moom bu nee am nga am xel am nga ko léegi nag kii ñuy tagg moom kenn la woon ci jaami suñ boroom tabaaraka wa yi nga xam ni ñoom ci noonu rek lañ doon dundee muy Serigne Madina moo tax ma wax ni ilal kay jiisi jëm na ci aji yeewu ja ibnil Moustapha kooku nag boo xamul mooy doomi sëriñ Mouhamadul Moustapha man mooy ka nga xam ni ismuhu aw turam almaaruufu wadi wan wadi xam inda zawid darki fa nga xam ni dab nan ak dëgg mooy Serigne Mbacke Madina moom aw turam wi nga xam ni moom la siiwee ñépp xam ko mooy sëriñ Mbacke kooku nag lu aabu xilaam yi lii yuute ci samay xalima fil qaraatiisi maa ngi koy wàcce ci samay këyit mubdiyan di ca feeñal bi xatt ci sama mbind mazayaahul kasirata mayam yu bari ya za sabti di boromuk segg ay tagg jëme ko ci moom ma ni katabtu bind naa musniyan di tagg alabnil Moustapha ci doomi Cheikh Mouhamadul Moustapha albarri doomam joojee nga xam ni nit ku baax la woon wa zaxzaxani soril na ma nag xaqul yaqini yaqin ani shakki walif lépp luy sikki sàkka ma ni tey maa di tagg doomi Serigne Mouhamadul Moustapha jooju ñu wax Serigne Mbacke Madina ma ni kii may tagg nag li ma koy tagg xaqul yaqin laa ci am kon sikki sàkk moom amul ci li may wax ci moom ndax lépp loo xam ni yëkkati naa ko rek jëme ko ci moom rek muy kàddu gu rafet rek ka koy déglu moo la koy njëkk a xam moo la koy njëkk a teewlu yow mi koy wax ndax moom ak mbaaxam ak egg foofu ma ni moom Serigne Mbacke Madina yuriidu jëmmale woon joo xam ni daf doon namm di bëgg alladi la nga xam ni ixtaara def koo tànn al ilaahu yàlla lanaa ñeel ñu wama ak la nga xam ni ixtaarahu tànn na ko lanaa ñeel ñu cheykhun sëriñ ba nga xam ni yuski moo daan faj shikaayatina suñuy njàmbat ma ni moom sëriñ Mouha euh, sëriñ Mbàkke Madina liñ njëkk a seetlu ci aw melokaanam mooy moom daal jëmm la woon joo xam ni benn bëgg-bëgg la amoon bëgg-bëggam mooy lan la ko suñ borom tabaaraka taala tànnal te loola nag mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yacbuduuni maa uridu minhum min rizqin wa maa uridu an yutcimuun inna allaha huwa arrazaqu zul quwati almatin suñ boroom nee bindul nit ak jinne lu dul ñu jaabu ko bindu leen di sàkku ci ñoom wërsëg ndax moom mooy kii wërsëgale bindu leen di sàkku ci ñoom ñu leel ko ndax moom mooy kii leelale suñ borom ni moom yàlla mooy wërsëgalaa kon bi nga xam ni mooy borom kattan moom nag jaam la woon boo xam ni loolu nga xam ni moo tax suñu borom tabaaraka wa bindu binduñu nga xam ni moo tax mu indi ñu fi muy jaamu suñu borom tabaaraka wa taxaw temm ci ay ndigalam di sàkku ngërëmam loolu mooy melokaan wi nga xam ni képp ku xam Serigne Mbacke Medina xamoon nga ni loolu de aw melokaanam la moom daal la maamam ja waxoon isil muridu laa yuridu abada gayra rida rahmani xaytu qasada loola moom ca la nekkoon man yuraa dees na gis ngëneelul kii nga xam ni usni alayhi moom laay tagg di ko kañ fa yaa lahu ma ni ak ma koo yéem muridan ci muridub cheikh ahmadul xadim boo xam ni xawaa dafa làqoon sidqal iradati dëggu nammeel ci sëriñtuwa Tuubaa bil maski ci jàpp goo xam ne daf koo jàppoon Cheikh Ahmadou Bamba te musu koo yemale ak dara maa ni moom Sëriñ Mbàkke Madina mii nga xam ni moom laay jëmale aw tagg ci moom ngëneelam moom ñépp ko gis ma ni moom doonoon na koo xam ni taalubib cheikh Ahmadou Bamba la boo xam ni dafa làq dëggug nammeel ci cheikh Ahmadul Xadim te kat cheikh Ahmadul Xadim dañu woon wa nafu wa ra'su kulli nafi wal maziya ala ittifaaqi alqawmi sidqu niya maa taalluqin bila tazabzubi fa faaza zu iradatin lam yartabi cheikh Ahmadul Xadim nee na bopp bépp njariñ ak may goo xam ni des na ko làq ci waayu yàlla ci li nga xam ni mboolem nit yàlla yi dëppoo na ci loola bopp ba mooy yéene ju dëggu ak aju ci moom te doo am benn dengi dengi mu ni daal ki texe mooy koo xam ni dafa am ak nammeel ci ab sëriñam te amul benn sikk sàkka loolu nag moo doon melokaanu sëriñ Mbàkke Madina ci digganteem ak Cheikh Ahmadul Xadim ma ni moom sëriñ Mbàkke dun ku texe la fama fil qalbi ndax musta nekk ci xolom misqaalu zarratin lu toll ni fépp zarra minal kibri ci ak rëy sëriñ Mbàkke bokk na ci aw melokaanam wi nga xam ni tamit da ko ràññee da cee ràññeeku nit la koo xam ni suñ borom tabaaraka wa taala daf ko defoon muy nit koo xam ni lépp luy ak rëy daf koo sori doonoon ku mën a suufeel boppam ku mën a wàcceel boppam doonoon nit koo xamante ni nii moom dafa doonoon jaamub suñu borom tabarak bu simple boo xamante ni wóotewul ay maqaama wóotewul ay darajak ngir kenn di ko fonke moom daal jaamub yàlla la woon boo xam ni deful lenn yitteem lu dul jaamu suñu borom tabarak wa taala ak nag sori lépp nag bam soree ak rëy alaahu ca la ko kaweel ak tawaadu toroxlu ga nga xam moom la daan toroxlu daa mulki muy boroomu nguur Cheikh Ahmadul Xadim day wax ni inna alladina zahidu fiha abad humu xaqiqatul muluki la fanad Serigne Touba nee na buur dëgg boo ko bëggee xam mooy ki nga xam ni dafa dëddu àdduna dëddu àdduna nag la ca njëkk mooy dëddu sa bopp yow ci sa bopp maanaam bul jàpp ni yow dara nga xamal ni daal yow jaamu suñu borom tabaaraka wa taala képp nga bu bu nga bañ a yëkkati sa bopp di ko teg fenn loolu nag nit ka ca lay tàmbalee ak dëddu àdduna nag sooga nag dem ca ya ca des maanaam di nga gis koo xamante ni nii la shaa'ir ba waxoon wa qad raxibat an lazati lmaali anfusun wa ma raxibat an lazati l wa nahi di nga gis koo xam ne boo ko dee fiir ci alal doo ko jàpp mukk waaye jamono boo ko fiiree ci daraja daa di koy jàpp ndax day doon nit ku fonk boppam nit ku yëg boppam bu boobaa nag ak dëddu àdduna amatu fa mani munibun moom aji ku daan dellu la moom sëriñ Mbàkke ilaa mawlaahu jëm ci yàlla boroomam fa huwa moom daal boroomam aniisuhu moo doon wéttalam sëriñ Mbàkke doonut woon kuy wéttalikoo nit moom kim defoon wéttalam mooy suñ borom tabaaraka wa taala wa mawduduhu ki nga xam ni moom la defoon ab soppeem bi nga xam ni moom la soppoon bëgg ko kooku mooy suñ borom tabaaraka wa mani in kaffa moom dafa mus di fegu an nahyihi walif lépp loo xam ni tereb suñu borom la bi tarki ci ba moom daal kim defoon wéttalam mooy yàlla kim defoon ab soppeem bi nga xam ni moom la bëgg mooy yàlla lépp lu suñu borom tabaaraka wa taala sa tere nag loola moom dafa fegu walif ko ba ko mutlaqan mani nahaahu tere na ko nuh yuhu am xelam anit tafriiti ci ak sa càggante fil xayri ci aw yiw moom sëriñ Mbàkke doonoon na jëmm joo xam ni waxtoom yépp la cheikh ahmadul xadim waxoon wa ammiril awqaata bin nawaafili baada al faraidi bila taxaafuli cheikh ahmadul xadim nee na yow jullit bi yow sama taalube say waxtu na koy dundal ci ay naafila ginnaaw ba farataye jàlle moom nag doon na koo xam ni doonoon na koo xam ni waxtoom yépp la ko daan feesala dell du neenal wenn waxtu waxtu wu dikk rek ma nga la nga xam ne nii moom la ko war a gun gunge ci njàngum alquraanam ci ay julleem ci ay azkaaram waaye ci dimbali jullit ñi ak taxawu leen ci seeni yitte ak nemmiku njabootam ma ni fa niama kon baax na alxaniifu jaam bu nga xam ni dafa doonoon jaam xam ni dafa jéng jëm ci suñ borom walif lépp lu moom di ko wéetal al mustaqimu kooku nga xam ni dafa juboon xocc tegu ca yoon wa bilaa shirki te musta bokkaale ak yàlla lenn ma ni moom sëriñ Mbàkke Madina daa dafa woo nafsahu bakkanam li saalihaati jëm ci jëf yu baax lan moo woo bakkanam jëf ci jëf yu baax yi soxlawoo gi nga xam ni daf ko mus di soxla woo dawaaman ci lu sax bi maa yaanihi ci lépp loo xamante ni nii moom loola dafa doon loo xam ni nii moom mbirum boppam la doon moo xam ni moom képp la jitteel maanaam moom musta am soxla ci lu kenn di def wala lu kenn di wax moom maanaam musta lijjanti mbirum kenn moom daal li muy lijjanti nga xam ni moo ko ñor loola mooy digganteem ak suñ borom tabaaraka taala fu mu toll mi ngi natt boppam mi ngi seetlu boppam nan la wane ginnaw tere suñu borom yi ak nan la farloo ci santaane yi suñu borom tabaaraka loolu nag moo taxoon mustatal kenn ma ni kooku nag zox zixa soree lees na ko am banki ci lépp loo xam ne nii dafay jur xat-xatu xol ma ni moom daal yadxu daf daan jublu qalbuhu ab xolam wa lisaanuhu ak làmmiñam ila zikri jëm ci tudd suñu borom tabaaraka wa taala ak fàttaliku ko la cheikh ahmadul xadim waxoon ca masaalikul jinaan ca ñenn ca ñennati ay gaay loolo moom dalu ko cheikh ahmadul xadim day wax ni wa yazkuru llaha kathiran bil lisaan wa qalbuhu adnasu min kulli janaan cheikh ahmadul xadim nee na léeg-léeg ngay gis koo xam ni foo ko fekk ma nga ma yor kurusam kocc kocc kocc di tudd yàlla ci làmmiñam waaye nag xol buy tilim ci tudd suñu borom tabaaraka wa taala noonee tamit la ko làmmiñ wa gunge aw làmmiñam ma ngay tudd suñu borom tabaaraka wa taala waaye ab xolam ma fees dell ci teewlu màggug suñu borom tabaaraka wa taala ak di ko fàttaliku ak di ko xalaat fu mu toll. ma ni wa awsaaluhu cëri Sëriñ Mbàkke Madina tazku ay cëram daf daan sell. bi sukkuri ci sant gi muy sant suñ borom tabaaraka taala ci ay cëram bilaa ifki ci lu àndul ak benn sos walla benn dóor ma ni moom sëriñ Mbàkke nan laam ni ñoo doon tuddee suñu borom xol ba di ko teewloo suñu borom tabaaraka wa taala cëri zahir ya tamit noona la meloon cëram yëpp benn bu ca nekk rek ma nga ca lam war a nekk te moo di sant suñu borom cant nag lu ñuy jëf waaye doonut lu ñuy wax rek i'malu ala daawuda shukran sallallahu alayhi wa sallam koroog ba muy taxaw di julli ba tànkam ya di niwi soxna Aïcha laaj ko ni ko ndax da ngay def li ki yàlla yónni te suñ borom nee na jéggal na li jiitu ci say bakkaar ak li mujj lan na ko sallallahu alayhi wa tontu dañu ko afala akunu abdan shakuran kon sant doonul rek alhamdulillahi rabbil rabbil alamin waaye nag am na ci cant loo xam ne nag yi moo koy jëfee mani nafa dàq na allaxwa ay neen aki waxi caaxaan tartiilul kitaabil mubiini jàng téere bu bir bi ta moo di alquran an sëriñ mbàkke wël wëlif moom sëriñ mbàkke madina lépp loo xam ni daal ay caaxaan la jàng alquran dox na diggante sëriñ mbàkke madina ak loolee faaxat moo tax daf daan bonni min hu tukkee ci moom raihatul miski xeetub misk maanaam moom daal alquran dafa doxoon digganteem ak lépp loo xamante ni nii rek ab safaan la moo tax moom lu neex lu teey képp moo daan bàyyi ko ci moom mani najibun ku farlu la woon kasiiru sumti ku bari ak noppi la woon mustaxilun ku doon ku daan soxla woola bi ci loo xam ni yu yuqarribuhu zulfa daf koy gën a jegeel ila rafi'i samti ci suñ borom tabaraka wa taala mi nga xam ni moo yëkkati jëmmi asamaan suñ borom tabaraka wa taala nga xam ni moo yëkkati asamaan moom Serigne Mbacke lenn képp la daan soxlawoo cala la daan farlu mooy lu koy gën a taxe lu koy gën a taxe gën a jege suñu borom ma ni moom Serigne Mbacke fadailuhu ay ngëneelam tabdu dafay feeñ moom daal hammuhu yitteem al ibadatu mooy ak jaamu yàlla moom benn yitte la amoon yitteem mooy jaamu yàlla wa naful wara ak jariñ mbindeef yi zabba moom daal dafa dàkku arrazaila mbooleem caay-caay yi daf leen a dàkku bil arki nam leen dàkkoo nag mooy lépp luy ak caay-caay loola moom daf ko raxas fomp ko ba mu set jotewul ak loola dara moom daal la Cheikh Sidiya Baba radiyallahu anhu wa an cheikhina waxoon ca cheikhul xadim wax joojee dëggu na ci sëriñ Mbàkke Madina wa ma aybuhu illa ibadatu rabbihi wa naf'ul wara fi subhihi wa masaihi moom daal amul benn sikk bu dul jaamu yàlla boroomam ak jariñ mbindeef yi ci subaam ak ci ngoonam mani saxiyun ku tabe woon falal iau déet ak takk wal jamu ak dajale maanaam dajale alal di def ci mbuus ak a takk loolu ñaar yooyu yashgalaani yi déet ñu koy soxlaal an rida rabbin walif ngërëmul borom ba nga xam ni jaada may na lahu ñeel ko bil milki ci ak moomeel maanaam suñ borom tabaaraka wa taala mi nga xam ni moo ko tàggataloon àdduna ndax fi mu ne ñi yeewuwut bàyyi yàlla daw di dàq àdduna bu ko defee nag yàlla xañ leen àdduna waaye ki nga xam ni dafa bàyyi lépp àdduna daw jublu suñu borom tabaaraka wa taala suñu borom mooy mujj wax àdduna nag ñi ko wëlbatikul nag toppal ma waajee moom nag ba nga xamante ni nii. dafa bàyyi lépp jëm ci suñ borom tabaaraka wa te lépp lu ko suñ borom tabaaraka wa jox ci wërsëg wu la wam koy wërsëgal mu jël loolee delloo ko ci jaami yàlla bokkul te ñooñee nga xamante ni nii suñ borom tabaaraka wa dafa wax ci ñoom ni kalla innaha lawa nazaatun lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jamaa fa awaa moom bokkul ca ñooñee wax ni wa jamaa fa awaa moom lépp lu musa am daf koy fab delloo ko ci jaamu yàlla yi waaye daaw ko fab di takk aka denc ak dajale ma ni nag bam defee loolu nag tasaare jim daan tasaare am amam ci jaam yàlla yi di leen ko dimbalee nga xam ni daf daan fàtte ay mbiri boppam ak mbiri njabootam ngir taxawu jaamu ya yàlla yi ci seen yitte loole nag ca la ko suñ borom tabaaraka wa taala nekkal jox ko ak moomeel goo xamante ni bokk ko kenn ma ni moom daal azzahidu mooy aji dëddu àdduna ja almajzubu mooy ka nga xam ni des koo xëcc lillahi mu jëm ci yàlla bil huda ci ak njub bi amalihi ci ay jëfam moom daal yub kii daf daan jooyloo as shaytaana shaytaane ma xisbihi akub kuréelam ma ni boo bëggee xam daal kan mooy Serigne Mbacke Madina mooy jëmm jooju nga xam ni dafa doonoon ku dëddu àdduna koo xam ni dañ koo xëcc jëm ci yàlla ci ak njub muy koo xam ni fu mu toll rek saytaane ki gaayam moom daf leen daan jooyloo ci ay jëfam yu sell yoo xam ni moo ngi koy jëfal suñu borom tabaaraka wa taala mani wa yudxiku ni ki noonu moom Serigne Mbàkke Madina daf daan reetaanloo bil amali ci ay jëfam ahla salaaxi ñi nga xam ni mboro mboro mbaax lan ñi nga xam ni daal ay nit yi mbaax lan moom fu mu toll ma ngi leen daan reetaanloo di leen bégloo ci ay jëfam wa tahaarati ak nit ñi nga xam ne dañoo làq ay xol yu laab fu mu toll ma leen daan bégloo di leen kontaanloo ci ay jëfam man moom nag mooy ki nga xam ni fii na ñoŋalees na ko bil bas mi ca muuñ gami def ani dax ki warif reetaan ma ni moom Serigne Mbacke ku ko xam ku ne xam nga ni moom kenn musta gis mu reetaan ba kekku waaye ragal yàlla nga moo taxoon bu amee lu ko bégalit te mbégteem du doon lu dul luy bégloo yàlla akub yonantam ak cheikhul xadim bu loola musaana am lan koy xamee ci moom mooy muuñ gamuy muuñ rek waaye kenn musta gis mu reetaan ba kekku ngir lu màggug suñu borom ma ni wadi un ku leer la woon jëmm la woon joo xam ni boo ko gisee da ngay xam ni ku fees del la ngi nii ak leerug suñu borom ma ni xaada wommat na lahu ñeel ko al wudu njàpp alal makaarihi ca jamonoy cibeel ya maanaam jamono ya nga xam ni day sedd guy nga xam ni laal ndox di ko jëfandikoo du yomb moom loolu musta dox digganteem ak jàpp ba taxaw ci kanamu suñu borom tabaaraka wa taala di joxe farata yi ak naafila yi te loolu nag sallallahu alayhi wa sallam isbaaxul wudui ala al makaarih na bokk na ci yi nga xamante ni nii day ubbil nit bunti aljanna ma moom daal qul neel ni'ma baax na zut dalki kookee nga xamante ni fu mu toll ma nga doon ragg ay cëram di jàppal suñu borom waaye nag jàppal googee mu doon jàppal suñu borom ca jamono yooyee nga xamante ni nii njàpp du yomb muy jamonoy sedd muy jànkonte ak ay wéradi ci yaram yoo ci yaramam wéradi goo xam ni joxoon na ko ngant waaye du tee jàppal suñu borom loolee nag wommatal na ko maa loo xam ni ardaahu loolee gërëm loo na ko kontaan loo na ko ma ne moom Serigne Mbacke ku yéeme la woon fa gaddu tarfi moom daal damm ab gisam an kulli saw atin walif lépp loo xamante ni nii lu neexul suñu borom la loo xamante ni nii bët waru caa tege moom Serigne Mbacke bëtam du ca tege bihi ci loolu nag tahura laabe alqalbu salimu xolam boobee nga xam ni dafa muccoon mina shakki ci lépp lu sikk sàkka moom daal bëtam bii du ko teg ci lu dul alquran ak loo xamante ni nii day fekki alquran waaye lépp loo xam ne suñ borom tabaaraka wa taala daf koo xaraaman ab bëtam du ca tegu du ca tegu loola nag mooy la nga xam ni moo gën a tax xolam boobee nag gën a laab ma ni muhibbun aji ku bëgg la woon ku bëgg la woon li jaarillaahi ñeel dëkkandoob yàlla ba ta moo di cheikhul jàlla màgg na moom yàlla muazzimun moom Serigne Mbacke ku doon màggal cheikh Ahmadul Xadim la muazzimun lahu ku ko doon màggal la fa xafiidu cheikh yi kon daal sëtub cheikh Ahmadou Bamba bi di Serigne Mbacke Medina zu rahki nekk na di ko xam ni boroomu jaamu yàlla gu sell la ma ni laqad kaana nekkoon na barran di aji baax mustaqiman di aji jub xocc ala tariqati l qawmi tege ca yoonu gaa yi yàlla ya za doo noon boroomuk dëddu àdduna wa doo noon boroomuk ragal yàlla moo tax nag lahu ñeel na ko sab kii sama segg ji ak sama euh, euh, euh, mandexe ji ci samay tagg moom Serigne Mbacke mooy ki nga xam ni moom laa ko jagleel ma ni li man ñeel na ka nga xam ni kaana dafa nekkoon awwaaban ilallahi di kuy dellu ci yàlla muxbitan ilayhi doon ku dëgmal yàlla te du wàññeeku wajjëtu jëmale naa ci moom assanaa samaw tagg lillaahi ngir jëmmi sama borom ngir jëmmi yàlla vil mulki yàlla mi nga xam ni mooy borom nguur gi jaam boobee nga xam ni daal dafa doonoon koo xam ni ku daan dellu la ci yàlla fab léppam jëmale ko ci yàlla te musta wàññeeku tey jii nag maa ngi jël samaw tagg jëme ko ci moom ngir jëmmi suñ borom tabaaraka wa taala mi nga xam ni mooy borom nguur gi madaxtu tagg naa alladi jëmm ji nga xam ni al ixlaasu sellal ak jaamu yàllaam ngir jëmmi suñu borom xamaahu sellal googe aar na ko an sumaatin walif luy lépp luy déggtal moom lépp lu mu daan def du ko def ngir déggtal waaye daf koy def ngir jëmmi yàlla wa an riya in lépp lu mu daan defit du ko def ngir ngistal waaye daf koy def ngir jëmmi suñ suñu borom kon daal as cheikhu sëriñ bii di sëriñ Mbàkke Madina daal uddu xila jaam la boo xam ni dugalees na ko fil fulki ca gaal ga nga xamante ni nii ca la suñu borom tabaaraka wa taala tàbbal ay gaayam mani ila saaxibil qur'aani maa ngi jëmale sama tagg ci ka nga xam ni moo doonoon borom alqur'an man kookee nga xam ni kaana dafa nekkoon aamilam bihi di jëfe alqur'an zaktina bin di boroomu wattandiku an walif mboolem terey alqur'an bi tarki ci bagum ko ba yurdi doonoon koo xam ni daf daan gërëm loo di bégloo di kontaanloo bihi ci alqur'an allaha yàlla boroomam bil qiyaami ci di taxawee alquran di ko jullee wa bit tilaawati ak di ko jàng yurdi yi doonoon koo xam ni tamit noonu mu doon kontaan loo suñu borom tabaaraka wa taala ci taxawe alquran ci ay julli farataam ci ay naafilaam noonu tamit la taxaw saxoon ci di bégloo an naasa nit ñi bi la ci jël ay mayam di ko jox bi laa bat ak mayam nag may lay doon goo xamante ni fu mu toll rek ma nga ca du ko dog benn yoon lépp lu mu am moom Serigne Mbacke attan na ko joxe ngir jëmmi suñu borom ma ni kooku nag uqudu sanaa yi maa ngi jëme ci moom pas-pasi sama tagg kon nag alhamdulillahi maa ngi sant yàlla di wax ni alhamdulillah cant ñeel na yàlla jaadali ndax moom sama borom may na ma bi xubbil kiraami ci ma bëgg nit ñi nga xam ne ay nit ñu tedd lan al atqiyaa yi nit ñooñu nga xam ni ay nit ñu ragal yàlla la lahum moo tax ñoom nit yàlla yooyu ñeel na leen xaab kii sama tagg wi nga xam ni maa ngi koy ràbb li may rab ci samay tagg ñoom nit yàlla yooyu laa koy ràbbal ma ni kon duitu woowees na ma ilal xayri ma jëm ci aw yiw im tadaxtu ndax tagg naa samay zaan sang boo xam ni fadailuhu ay ngëneelam ayat lottal na zawil baxsi ña nga xam ni boroomu gëstu leen wa darki ak ña nga xamante ni nii boroomu jot lan maanaam ña nga xamante ni ña ngay gëstu ci xam-xam ba dab ay mbir yu bari yoo xam ni yu sori woon la yu fàdd woon la ñooñu lun gëstu gëstu gëstu rek ngëneeli sëriñ Mbàkke Madina dana ca am loo xamante ni nii duñ ko mën a xam kon ilaa man samaw tagg mi ngi jëm ci ki nga xamante ni nii tartiilu aayaati rabbihi jàng aayay boroomam ta moo di alquran qadaa faj na lahu ñeel ko jumlatal xaajaati mbooleem ay aajoom baadan baadam mi xal baadam mi xaddanki ginnaaw faru xat moom mi nga xam dafa saxoon ci jàng alquran nga xam ni foo ko gis même bu toogee ci mbooloo foo gis Serigne Mbacke Madina yaa ngay gis tunya ma ngay dalante ma nga ca njàngum alqur'anam bu jàmmantewul waxula kenn da koy gis ma ngay tari alqur'an ay xalawaa tamit ca loolee rek la nekkoon moom daal alqur'an la defoon muy li nga xam ni mooy yitteem alqur'an joojee na ca la ko suñu borom tabaaraka wa taala fajal mboolem ay aajoom ma ni nag nga xam ni noonu la meloon ci alqur'an ma saraftu soppi na li wajhi alladi ngir jëmmi yàlla mi nga xam ni awlaahu moo ko méngale xayraatihi ay yiwam assana samaw tagg maa ngi jël samaw tagg jëm jëma ko ci moom kon nag di wax ni albushra mbégte daal tu saaku mooy li nga xam ni des koy màng liya jëm ci man mi nga xam ni maa ngi liggéeyal nit ku baax ki fala ab kii kon man naa dal xel ci ni ëllëg man incha allahu taala du ma bokk ca ñey jooy ca barab boobee ma ni kon tagg naa habiba zikri ka nga xam ni moo doonoon soppeb alquran man koo kee nga xam ni kaana nekkoon na layluhu guddeem bii ci alquran ka nahaarin mel ni bëccëg guddeem daf daan leer ba mel ni bëccëg ndax ndax alquran sitruhu kookee nag suturaam fii na ñoŋalees na ko an hët ki wëris ak xawweeku moom sëriñ Mbàkke Madina alquran ko suturaal moo tax suturaam du xawweeku àdduna du xawweeku àllaaxira ma ni kon waduudu yow yàlla mi nga xam ni yaa sopp say jam fan nanga na nga dolli xéewal alal muxtaari ka kañu tànn te moo di yonent yàlla muhammad bi aalihi ak ak njabootam wa ashaabihi ak ay saxaabaam wa zakki na nga sellal an nafsa sama bakkan xaaliqahaa yow yàlla mi nga xam ne yaa ko bind taqabbal maa ngi ñaan na nga nungu bihi ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa da taqabbul yow mi nga xam ne yaay boroomu nungu xidmati liggéey bi nga xam ni liggéeyal naa ko Serigne Mbacke Madina waqud ta nga wommat nag sarmadan ba faw faaw ala ridan ngën jaakawey ngërëm li Serigne Mbacke ñeel Serigne Mbacke Madina kon mbokk yi loolu moo doon qasida gi ngeen àndoon ko ak seen mbokk Abdul Qadir Siis wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh alhamdulilah alkarim silmilan ala sixaali bi furudin wa sunan sakartuhu li annu xad saxani li watani bi nafa ma anfani